jëm ca ah, te duñ jeexal man méthode méthode bi moom dafa maa yéem trop mm-hmm. surtout bu fekkente ne da bokk ci jàngkat yu bees bi ñu yu bees yi ñu lay jàngal méthode mm-hmm. nan nga war a nan nga war a liire boo noppee nan nga ko war a seggee bu noppi ñëwaat di xool mbindum sëriñ bi da yéemu da nga naan est-ce que bi dund ci suñ jamono ci wala bindaluñ ñoon est-ce que sax sëñ bi waruñu lan mooy méthode ndax booy xool ni mu ni mu ni téere yi muxaddima mhm. muxaddima boo xoolee muxaddima rek la mën a tudd boo bu foog ak téere boo ko mën di xool baabul awal bu ko waxee mhm. ni nga koy séparé ak baabul saani ni nga ko ni nga ko ciy seetloo mhm. ak ak ak euh, booy xool yenn téere yi nga xam ne daf ko daan wayaat wala mu koy yeesalaat boo demee di ko liir léeg-léeg da nga ca da nga xaw a da nga ca xaw a seetlu ak anchois iya dëgg la waaw maanaam tàmbali wax fee mottaleeku fële wala nga ñëw ba ci digg bi nga commencé dara dagg ko dem ba ci mujj nga soog ko caa mot lii sëñ bi nag moom day tartib tartib mën xëy yi bi muy bi muy doxee moom it di di di di di lu yéeme di lu mat a bàyyi xel waaye du ci fànn yooyu dong mm-hmm. maanaam daal nga fànn gu mubtadi bi soxla mm-hmm. kii soo ko commencé jàng fànn gu soxla rek sëñ bi indil na ko ci ab ab ab ab xulaasa mm-hmm. ab xulaasa maanaam ab tënk bu am solo feeñ na ci naxu grammaire ci samaratullab feeñ na ci sax ba ci yenn téere yi nga xam dañ ko daan jàng lu mel ne nusratu yi gis nga liggéey bu kawe bi mu ci des bu bu mag bi mu ci bi mm-hmm. ci bi mu ci def mm-hmm. waaye bu loolu jàllee bu ñëwee ci bu ñu weesoo xam-xam bi ak taxawaay bu ñu ci taxaw bu mel ne sëriñ biit it euh, am na wër bu defoon ci bi mu xeeñtu lu baax dem ci ay yenn dëkk-dëkkaan mm-hmm. di xeeñtu jàpp naa ne loola xay na wër xam-xam ci la woon waaye wër gaa yu baax ñi it di am daat ci ñoom ak it xam euh, niñ daan doxe ginnaaw moom day tajjit il faut mu xam li fi nekk lan moo nekk ci terrain bi lan moo xew ñi fi nekk nan la ñuy doxee bu ko defee mu mën a xam fi muy fi muy fi muy fi muy fi fi mission nekk dëgg dëgg dëgg. foofu it bëgg naa ñu ñëw ci mooy wër bi mu wër ci gannaaw bu fi waajuram gannaaw bu waajuram làqoo wër boobu nan la demee woon ak yan meññal la ko juram. bu ko defee bu ñu noppee soog ñëw ci yoon wi nag dëgg dëgg. Euh, jërëjëf sëñ Abdou Khadir euh, wër boobu day mënees naa wax ne la ko ñuulug dëgg lépp rek mooy mooñ gu ko yàlla mooñ ci bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg lu baax loolu doon nature boo xam ne euh, noonu la ko yàlla mooñee moom noonu la mel maanaam noonu la ko yàlla bindee noonu la ko xam xuliqa rabbaniyan tax na ba bi nga xamee ne sëñ Mor Anta Sali bàyyi na fi mu moom boppam moom boppam tàmbali mën a doxal boppam yenn yi na mu ko bëggee ca la daal def wër yooyu mu doon def hmm. wër de xaadir bi mu jële woon ci suñu maroon seli waaye juróom hmm. mu wër yeesal ko ci ay nit yàlla bokk na ci suñu as camara ca ndar hmm. dem ci moom ay yoon yu bari ngir yum doon sàkkoo ko wut ci asrar tërbiya ak la aju ci tariqa xaadiriya ak la ca aju lépp ak yeneen yu koy dolli ba ni nga xamee ne dem na ba ni ko suñ Basiir waxee lam ca bëggoon amu ko ca ca moom mu jóge fa jàll gànnaar ci Cheikh Sidé Baba mi nga xam ne jamono jooju euh, moo fi nekk di xalifa bu waa kër Cheikh Sidé El Kabir radiallahu anhu mm. Mm. Euh, yeesal na ci moom tariq qadriya ca yoon yooyu itam laata muy dem même gànnaar senegal gi wër na fu bari mm. maanaam diggante Kajoor Bawal Saalum Njàmbur ba waalo hmm. foofu fépp mënees naa wax ne foofa sëriñ bi tegu tànkum tànkam amut ci ñan la doon dem ci ñan fu ne dem na fa ci ay nit yàlla yoo xam ne hmm. toujours ñi muy dem ci ñaar rek lay dem hmm. boroom xam-xam yi ak nit yàlla yi yaakaar ci ñoom yàlla doon ko defee nag ci méthode bu am solo kon day mel la mel meloom meloon soppikuwut dara soppi muy wër xam-xam ak lu baax ak lu baax rek di fàttali ko rek saa yu nekk euh, doxo ci doxinu am solo itam te euh, ñi ca nekk ñuy dund ci kaw suuf mu dem ci ñoom saafonteek ñoom lu mu mën a jariñoo ci ñoom lu mu mën a jëlee ci ñoom mu jëlee ci ñoom mm. ñii mu jëlee ci ñoom ay ijaaza ñii mu yeesal ci ñoom mm. ñi nga xam ne yàlla dogal na génn nañu àdduna booba itam mu dem ci ñoom ziyaare seeni barab mm. euh, sàkkoo tëbbulu ci ñoom ak barkeelu ci seeni barkeek seen may yu leen yàlla defal ba ni mu demee Mauritanie ba mu fa demee itam noonu mu defoon Sénégal noonu la fa def Mauritanie ba mu fa demee dafa wër fu bari dem na foofu bari. dem na ci dem gu njëkk gën a. ok dem ak Murtani gu njëkk ga. dem ak Murtani gu njëkk. ndax ñu bari dañuy yaakaar ne sëñ bi bi ko. tubaab yi nasaraan si yóbbee Murtani fa la ci la njëkk a teg a te dem na Murtani ñetti yoon ci liñ jàpp. Hmm. lu néew néew dem na fa ñetti yoon. dem na fa bu njëkk muy bi suñu moroon sëriñ doog ko jógee. Hmm. dem na fa beneen yoon boo xam ne ci 1309 la. loo xam ne moom mi ngi jiitu demu géej gi ci ay at yu néew rek ay ñeenti at yoo lay gi yàggut hmm. wala ñett beneen bi mooy demu mille neuf cent trois bi ko fi tubaab yóbboo ci exil bi mm. boobu moom mooy dem gu ma jugi mm. euh, dem na fa ñaari yoon avant muy tege ci loxoy tubaab yi ah a wax ñaari yoon avant muy tege ci loxoy tubaab yi mm. diggante boobu bii euh, sëñ Basiru nettal na bi mu demee ni ci waa kër Cheikh Sidiya waaye yëmut foofee ca ñoom dem na ca ña nekkoon tariqa Chadiliya ngir jariñu ci ñoom ñu mel ne waa kër Cheikh Mahamadou Fallum nu Mattali ak ñu mel ne waa kër Alu Hamdi. muy Cheikh Babou Wuld Hamdi. mi nga xam ne sëñ ma sëñ Basiru sëñ Madame Diop Dagana nat na ci Iroon na dem xissa boo xam ne mooy wane jël gim mu jëlee ci moom tariqa Chadiliya ci moom la ko jëlee. moom Cheikh Babou Wuld Hamdi moom doon nitu yàlla ku mag di kàngam di borom xam-xam loolu it nag taalif téere yu bari te amoon taxawaay yu kawe ci lislaam ak jëfe ko. moom moom rek seera na sëñ bi seera su doy war son sëñ Basiru nag ci mënoon baaxal xadim ca njëlbeenu sëriñ bi cay wër yooye la seere woon ci sëriñ bi ñu ko doon laaj ci xam-xamam ak wilaayaam lu mu ci xam mm. mu leen daal bi ma nekkee moom daal ba xama ndax fanaan naa ak moom ci benn barab benn néeg benn benn bis fanaan na ko moom ci genn xayma mm. sëriñ mat mi nettal na ko mm. nee na euh, mu wax leen ne leen xamee naa ci moom ne daal boroom xam-xam la dëgg waliyu la dëgg ku bari teggin la itam daan na xam-xam bi lii firnde ji mooy nattu naa ko ci ay masala yu bari yoo xam ne borom xam-xam yu bari seen tànk tarxiis na ca mm-hmm. te ba ma ko ca nattoo lam ca wax mooy la ca jub la ca gën a jub lan law tontu mm-hmm. loolu mooy tegtale xam-xamam bu wér te sell mm-hmm. daan ne teggin yi moom yéem na ma ndax gis naa ci moom teggin yoo xam ne nit ci jamono jii xamatuñ teggin yooyu si moom laa di ko melowoo daan na nag wilaaya gi moom am naa ci ay firnde yu biir yoo xam ne moom du lu may wax waaye xam naa xam naa ko ci Euh, ak ñeneen ak ñeneen ñu bare bari. ñoo mel ne CDC yi. niróo na ak kàngam si nga njëkkoon a wax. dëgg la bu baax a baax daanaka mel ne dëgg la dëgg la bu baax a baax. dë waaw dëgg la ñoo bokk même lu ñu seetee. waaw ñoo bokk même euh, gannaaw boobu xam nag jóge na fa. ndax jamono jooju sëriñ bi buñ fàtte ne ab xaadiri la moom tariq xaadiri ci la nekk. waaye nag jël na ñaari tariqa yee wala ñaari werdu yee muy werdu chadali werdu tijaan yi. Mm-hmm. waaye gën jël la leen jël moo mat a ràññee mooy jëlu leen jëlu aju ca tarixa ya déedéet ndax loolu mënta nekk ñaari tarixa des ko boole jenn jamono mm. waaye daf leen jël jëlu barkeellu ci ñoom bu dee xaadir yi la nekkoon xaadir yi moom la doon taalluqan taalluqan doon ko mm. maanaam xaadir yi la waxal ko boppam bind ko mm. waaw yaqulu ahmadul faqir jidda ak tuubawiyul qaadiriyu wirda wax ci ay bare bare bare ci Abdul Xaadir Jilaani ci xaside googu xaside googu lu ci bari mi ngi ci mënoon baaxal xadim euh, waaye ñaaree da leen jël ngir barkeelu ci te loolu nag lu sax la ci tarixa yi ci ku xam fiqhu turuq ni mu doxe tarixa yëpp maye nañ yëpp nag laa wax ci dul benn exception qadiriya chadiliya tijaaniya yëpp ci seen téere tarixa boo ca demee te xóotal gëstu da nga gis ne ñoom ñëpp maye nañ ne tarixa bu ci waay mën a jël itam aju ca muy tariqam ci tërbiya ak suluk taalluq teewut mën naa jël beneen tariqa boo xam ne du ko jël jëlug aju waaye da koy jël jëlug barkelloo ko loolu lu wér la amul ku ciy wax da ngaa xamul li nga wax waaye loolu am la kon loolu la defoon bi nga xamee ne nag dem na ba jëmmi jamono moom moo waxal boppam texte bii muy bëgg a wax mi ngi ci Minanul Baaxil Xadiim mi ngi ci Irwaa'u Nadiim bu Sëriñ Bi li mu jëm Dagana mi ngi ci Ignaa'ul Adiim itam bu Sëriñ Bi li mu jëm Dagana sëriñ bi moo wax ne dem na nag ba xam na ne daal li mu bëgg dëgg-dëgg moom dafa mel ne yii mu yor mënu koo may lool nak mom mo xam deug deug lam bëgg lu moom hmm. en tout cas sëriñ bi mom lim ñu wax ñun daanañu doy da hmm. xam nañ Sëriñ Tuubaa moy kan mom hmm. euh neena tax mu bayiko ko bàyyi amna am barab bo xam sax gisee nañ ci ne euh, man na am du sori moy ne ci ndigalu Yonent sallallahu alayhi wasallam lako ko mu bàyyi yoy yëpp bi mu ko bàyyee jël alxuraan def ko muy werdu bopam jëlaat ko beneen façon jëlin bokkut ak bam ko bam ko nan jang nak jekk ndax alxuraan mu mustago mom waye lolou doxé ñut yalla beneen pas-pas la génne ju bees bokkut ak la ca la ko jiitu woon daal di wax ne ba bi mu demee ci géej gi nag kon mooy borom nafaxaat sax wax na ko borom nafa borom nafaxaat sax wax na ko borom nafaxaat nettal na ko nañ ak foofu foofu lu am solo dafay am foofu ak marxala bu am solo la mooy lan mooy marxala rupture dafay am xatia bu am diggam ak tariqa yi ndax foofu la sëriñ bi génn ci tariqa xaadira bi nekk bi mu bàyyee wér di yëpp ok bàyyi xaadira yaag yeneen wér di ci des yëpp xaadira yëpp daf koo baax bàyyi itam ñaari ñaari wird yee ci des itam maanaam nekkatut ci tariqa qadiriya tariqa chadiriya tijaaniya kenn doon nekkatu ci ndax musu caa nekk musu caa nekk. waaye bàyyi naa jëfandikoo la yoroon doon ko barkeloo waaye bàyyi waale na ko itam la ba bi mu demee ci géej gi nag la waxal boppam ci lu mu bind ni ma ko léegi sursi yi ma joxe. na ko ci fekk te amatutoon ab sëriñ it. diggante boobu amatul kenn kuy sëriñ yonente bi sallallahu alayhi ci li moom la aju ci moom gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisul jëxëran taalluq ci moom mm-hmm. waxal ko boppam mm-hmm. ci xissa boo xam ne maa nga ca kanam mm-hmm. ndax ginnaaw bi mu demee ba jógee ci géej gi ba ba ñëbbu ko gànnaar am na xew-xew bu fa xewoon ci gànnaar benn dong bàkk Seex Sidi boo xam ne xissa baa ngi ci Minanul Baaxil Xadim kooka bi sëñ Seex sëñ bi nekkee Seex Sidi tuxu tuxu yooyu ñu doon def te mujj sëñ bi nangoot ta dem benn waaye ci seen dongo yu mag yi koo xam ne ñëwoon na sëñ bi di gaaral ay gaaral ngir moom lam jàppoon lam xamoon la jàpp na mooy dox ba tey hmm. jàpp na ne ba tey sëñ bi donga Cheikh Sidiya la donga bak Cheikh hmm. Sidiya Kabir la hmm. ab xaajali ba tey te fekk loola amatut ba tax mu di ko wax naan ko yow de yaa ñu gën a xam war ma yi am diggante sëriñ ko taalibe nangam a nangam sëriñ bi daal di cee bind bindu mu leer ndax sëñ Tuubaa nag ku am solo la koo xam ne maanaam kuy assumer ay responsabilité am la sëñ Tuubaa noonu la ko yàlla bindee parce que ni mu mel ko xamee daal lu simple la ci yow ah, parce que noonu la mel maanaam lu mu nekk da koy assumer ba mat sëkk du ca ba dara. ba mu nekkee xadriye mm. ay gars yi di ko di ko tuumaal ak di ko sabote mm. naan safiix la ak nangam la mm. ca la wayoon xaalu safiihun li sarfi anhumu basari ak in safahun ya fii wurid axatu bii li cheikh sidi cheikh badi wal xadri xasidi ko ca la ko wayoon assumer ay responsabilité ba mat bi mu demee ba génn ca it daa assumer ay responsabilité ba mat leeral nan ñi ne génn naa ci nekkatuma ci nit nag wax dëgg yàlla moomoom boppam nee nañ nañu jàpp na mi ngi ci saa yu ne génn naa ci na jàpp ne génn na ci ndax moom boppam mm-hmm. léegi loolu mu bindu ak Cheikh Sidiye lettre la boo xam ne déclaration la ñu bu leer boo xam ne Cheikh Sidiye moo xamoon na li xew mm-hmm. ndax man gis naa lettre bu dox diggam ak Cheikh Sidiye boo xam ne maa ngi ko jëlee bu tilmit ci maktaba Cheikh Sidiye lettre boo xam ne mbindum loxoom sëñ Tuubaa mm-hmm. ay kii ak dara loxoom la sëñ bi Cheikh Sidiye yu mu doon wax ak sëñ bi ba sëñ bi bind ko lettre boo xam ne la mu koy tontu tontu ba moom leer na ca ñi fi mu nekk waaw ndax yegg na ci bokk di ko wax ne ko sax ne fii ma toll dootuma jëlee ndigal ci ku may rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu moom ma ngi ca lettre ba fu ko soxla lettre mën nañu ko wan mi ngi fi minum loxoom suñu wàll data na sax it data ba mu bindee euh, lettre ba mu bind ñee ci déclaration ba ci Mauritanie mooy da caa wax lu leer wan leen ne leen man du ma seenub taalibe yéen waa kër Cheikh Sidiya tey it Cheikh Sidiye mii ngeen jàpp ne moom damaa nekk ci moom ajjuma ba tey mm. Cheikh Sidiye xam na ne du ma taalibe moom mm. xam na ko mm. kon léegi yëf leer na te loolu itam waxu ko foofu rek yam ca sëñ ma Lamin Jóob Dagana nett na ci na Nadim jataay bu mu toog boo xam ne benn borom xam ci borom xam naari gànnaar moo toogoon na sëriñ bi moom sëñ mu teewee ko nee na kooku di ko wax ba ne ko ah man de damaa lu tax may gis daal kooku dana kuy sa mu ne ko Rasulullah nag kon lu tax may gis ngay tudd waa kër Cheikh Sidiye di tawasul ci ñoom ak di leen tagg di waxe ci ñoom waxe nu koy wax ak say sëriñ mu ne ko ak kay booba damaa meloon ne gumba guy palamtu yoon ku ma gis rek am ci yow yaakaar tàlla la sama loxo uh-huh. ba ma demee nag ba nga xam ne nag lu mag li muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam feeñal na ma boppam uh-huh. dëgmalal ma boppam uh-huh. di ma tërbiyal boppam saqata min ni amru basaayit baat boobu la jëfandikoo léegi amatuma ku may doxale sama digg rasulullah sallallahu alayhi wa genn kilifa laa am benn wasila laa am mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dox sama diggante ak sama borom kenn doxu fi kenn kon lii leer na nañu ba tey kon rupture boobu lu mat a bàyyi xel la waaye suñu sax man foofu am na laaj bu ma fi bëgg a laaj tuuti rek boo ma ko mayee muy kon sëñ bi ci wër gi lañ lañ tàmbale woon xañtu gi lu baax fu ku baax nekk mu dem fa ngir di xool xam-xam ak ak ak ak ak ak ak yoonu tasawuf ak soobu léegi fi may laaje foofu mooy diggante wër boobu ak ñaari marxala xatiyan boobu am rupture boobu am mhm. nu mu def ak ni nu mu def ak sosug yoonu sëriñ bi waaw sosug yoonu murit nu nuñ nuñ nuñ ndàbbalooy foofu nu sosug yoon wi duggee ci diggante ñaari étape ok foofu sëñ Abdou Khadr laal nga ci point bu ama ama am solo boo xam ne bu mat di càmbar la te mat di leeral mm. ndax ñu bari ci nit ñi dañ ciy jaxase lu bokkut te nag ku dellu ci delluwaay yoonu murit mm. te mooy la ci jiitu mooy mbindum Sëriñ Tuubaa mooy lu mm. jiitu ci delluwaay yi mm. ku dellu ci dellu mbindi Sëriñ Tuubaa jëmam te jàngat ko nag laa wax waxuma nag ngay liir ni rek di jàll waaye jàngat li muy wax di ko xool bu baax di xam li muy wax ci ay xasida yu wuute sax nag boole ko itam dellu ci yeneen delluwaay yi aju ci yoon wi ci lu mel ne mbindum Sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana mbindum Sëriñ Basiiru lii may bëgg wax nga jàng tasawuf it nag boole ci tuuti xam ci dara. mooy ne woote ba sëriñ bi woote woon ca Mbàkke Kajoor. loolu moom booba du woon ab tariqa du woote ba aw yoon. ndax booba sëriñ bi ci biiru yoon la nekk. biiru yoon nag. mënee su cay nekk muy ab tariqa bu am lu ko encadré am lu ko téye nga cay sosaat ab tariqa ci biir bu bokkut ak moom loolu mënut a nekk. loolu moom tasawuf lu leer naa la mënut nekk. Mm. te logique la boo xam ne ku xam ne mënut a nekk. Mm. mi ngi mel ni kenn mënut a nekk ci benn parti politique biir parti politique nga sosaat ci ab a nekk yi même noonu mënoo nekk ci benn mazhab nekk ab muqallid ci mazhab ci imam muayyan sosaat ci biir mazhab bi ab mazhab bees loolu mënut a nekk ba ci sunu murid gii tey ku ne xam na ne bu ma xëyoon xëy na damay sos ab tariqa bu beru waaye ci biir murid gi laa koy sos dañ naa ma yow da xam ne loolu mënut a nekk xel nangu ko sax kon sëriñ bi booba lam woote woon ci Mbàkke Kajoor booba loolu du tariqa gon booba lan moy ab da'wa la manam ab woote la ci bir tariqa qadiriya ndax serigne bobu ab qadir la ñi ma àndal ñëpp ci tariqa qadiriya leen doon tarbiya booba loolu moom moy lu wér firnde saxal ko ku dem ci source yi ma wax da boko jangate te setantal ko li ma wax da na leer nañ ci yow kon ci nonu la doxé muy ab da'wa ci bir qadiriya da'wa bo xam ne tëj jiidiya bi say rinaga ak bi am rinaga ok moy day delu ci ci lim nekkon mom ci lim nekkon la kon دعوة لبوهانة تجديد يلا بوهانة تجديد جموم شامل لا أه. نخ تجديد يلا تبير قادر يجيب نك أه. ويا تجديد يلا تتصوف جبتهم تجديد ليهم في الإسلام جبتهم نخ عندي وارنا تربية بوهامنة أه. بابا طريق قادر يجيهم تربية بوم أمر في سنجوا تربية بوم دون تربية نمجي كون عندل تمبك كجور بتمبك بتشتوبا بنيمي دمجي جيجي تربية بوبا أفريقيا وجانت ñun xam nañ histoire li fi dox jàng nañ lu mat ñaari xarnu lu jiib sëriñ bi ba ci sëriñ bi hmm. gisuñ fi benn cheikh bi boo xam ne doon na tërbee ci anam googu sëriñ bi doon tërbee loolu amu fi hmm. gëj na fi lool loolu bu dee mas na fi am hmm. itam kon kon est-ce que loolu du wane ne sëñ bi am na lu mu doon waajal aha kay maa ngi ko doon bëgg a ñëw kanam euh, xam yaa ngi bëgg sàkk mission bu <laughs> léegi nag euh, kon kañ la sëriñ bi am yoonu boppam yoonu boppam moom mingi tambale amé ci bim joté ci yunus sallallahu alayhi wasallam diko mu di ko tërbiyal bopam bam ko tarxiyal boppam ba mu waxal boppam ne ci xaraam na ci man may ci kenn kuy nekk ci kaw suuf na ci man may ajoot ci kenn kuy nekk ci kaw suuf ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa aqbala alaya yurabbini wa yuraqini yonent bi alayhi salatu wasalaam na moom boppam di tërbiyal boppam di ma tarxiyal ci ay tolluwaay yu wute kon mënatuma ndax we bàyyeeti fi yonent bi alayhi salaam daal ci kenn ñàkk te gën féetu kaw uh-huh. waaw mënoo dem siñ mun Muntaxa mën a yegg ci moom jokk ci moom direct bàyyi ko fi naan da nga ñëw di jokk ci moom Issa Gueye loolu <laughs> borom xel du ko def uh-huh. mënta ne uh-huh. kon euh, noonu la tëddee kon foofu la tariqa boppam sosoo kañ nag la feeñ feeñ gu fis gu mat mooy bi mu jotee wérdu boppam yi nga xam ne ci la ñuy ñëw muy al wérdu maxuus ci sarsaara ci 1321 kon foofu la sosu tariqa bi sosoo ci anam gu fis gu mat sëkk foofu bu ñu ko bëggoon a bu ñu ok maanaam yoon wi. ma maanaam loolu. Hmm. am na ci loo xam ne moom manees naa tudd ne ab tàmbali la. waaye du du sosoogun gu fés. Hmm. te mooy la ko tàmbalee ca ay chach muy 1311. Hmm. boobee nga xam ne ci la aju nag ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam direct. moom kenn doxatu fi. médiation amatut. kenn doxatu fi kenn. te na nga xam ne diggante bi day lu lu ay soppiku yu doy waar yu gaaw am. loolu nag dañuy wax ne. Sëñ ab doxam ci yàlla moom moo yéeme maanaam dox bu yéeme boo xam ne xiyaasuur la am dox boo xam ne itam am na ci wet goo xam ne boo ko bëggee natt ci yenn nattukaay yi da nga juum da nga juum bu la yàlla dimbali sax mën ngaa weddi lu bari waaw ndax nag am na ci loolu moom faaw da nga koy xool ci moom loolu sax mooy firi loolu mu nett waxal boppam sëñ basir nett la ko ci mën baal baaxal Xadim ne képp ku ma bëgg a xam sama mbir dëgg-dëgg te bëgg koo jaaree ci tarkibul aqisa Eh. ca ña nga xamoon ci nit yàlla yi fi jaaroon eh. yaay nit ki ki ma gën a réere eh. ndax daa am yoo xam ne moom ay daal bunt yu ko yàlla ubbil yu yéeme yéeme la donte nag téewut na am na ci yoo xam ne it na yooyu jàng ci nit yàlla yi jiitu woon danga dana la mën a mën a comprendre nga mën cee dégg dara kon foofu la sosu gi tàmbalee fis gi nag nga xam ne sosu gu mat sëkk mi nga amee ci 1321 ca gànna bi nga xam ne werdu yu feeñ na ndax sëñ Basiiru bu ñu demee ci mënoon Baal bi muy leeral tari bi muy leeral mbirum sëriñ foofu da cee wax tàmbalik tasawuf ci sosu ga ndjel benu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak nam mu doon tërbiya sahaba ya ba gannaawam ñi fi jaar ci nit yàlla yu baxé ci tabi ba nit ñi yexé ci jamono aqtaab yu njëkk yi Cheikh abdou Xaadir jilani ñom Cheikh Ahmadou Badawi Ahmadou rifai Cheikh abou Hasan Chadali ba Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu anhum ajmain wa nafa'na bihim daa di wax nak ne ak liñ def ci l'islam lépp ak ci tasawuf ak yoonu yàlla waye dem nak ba nga xamne ba ci Cheikh Sidi mukhtar Kunti radiallahu anhu fii ci Shinqit rab nga xam ne léegi fa mu nekkoon boo ko doon wax léegi tey ci Mali lay bokk ci tariq xaadiri ak ni mu ko tëj jiide ci jamonoom ak lam ca def wax ca ne Cheikh Sidi Muxtar Kunti ku yéeme la koo xam ne yeggoon na ci daraje am izn bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag taxul mu yor tariqa boppam bu beru ci biir xaadiri la nekk ba tey di ko tëj jiit hmm. daa di wax nag ne sëriñ bi nag bi nga xëy na dem na ba yëf yi nag mel na lu tàmbalee dëng daay ci la suñ borom waajal nag jàmbar jii di Cheikh Xaadim radiyallahu anhu ñëwaat delloowaat yi fii ca cosaan la ko bàyyi yéen salaat ko ci anam ko mën a foofu nag la waxee lu am solo wane ne sëriñ bi beru ca tariqa boppam noonu ak bi si daal di wax ne ndax ku mel ne Cheikh Abu Cheikh Kunti donte ne amoon na ci Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye amutoon طريقه مستقله تي قابل لا ترتيب آه، معين اك اي اذكار يو خاني مستقله لا اموكو واي طريقه خادر يم دخو رك نون نون لا وي دي دخي اك تجيدات يغه مام موكو تي دوغال واي تسان لا مام نون لا دخي دار سوبي كو سيرين بي نك بيم نيوي دا ام مانام لو ياس لا ام موي ورد ما خوز وي نيما كاي واخي توجور ورد لا واخاني بو تي ديمي لي گنا بري تي اذكار يا تي نك da nga ko fekk ci yeneen tarixa yi ko jiitu woon maanaam da nga ca fekk istigfaar mu nekk ci tarixa tijaaniya fekk ca hayla la mu nekk tarixa tijaaniya nekk ci tarixa qadiriya fekk ca xasba la mu nekk ci tarixa chadiliya waaye ci anam gii mu ñëwee ci wirdu maxuus ci tartib bi ak adad yi mu ñëwee ak nii mu toftaloo amul benn tarixa boo koy fekk loolu moom lu leer la loo xam ne amul lu ñu weddi ku ko bëgg a weddi bàyyi boo ñëw indi firnde yi mu leer tarixa qadiriya xam nañ wirdu yu mooy lan tijaan yi xam nañ wér bi mooy lan chadili wér bi xam nañ mooy lan mi ngi fi jërul soril boo toppee internet bi léegi moo génne la ko te benn boo ci xam ne tartib baag adat yaag lépp ak ñi mu tëddee nii noonu la ci tëddee amut mën nañoo tolloo ay adat waaye dañu wute niñ tartib boobu mën nañoo tolloo ay tartib waaye dañu wute ay adat kon non la tëddee kon moo tax li sëñ ma la mu job dagan di wax ci raw na dim tariqa la boo xam ne kenn mësu ko am ci nit yàlla yi ko jiitu woon ci sëriñ bi la njëkk a amut ci keneen ku mas a jaar ci loxoom radiallahu anhu wa kon foofu nag la sëriñ bi amee tariqa boppam bu beru boo xam ne tariqa la boo xam ne daa jokk ci yonent bi sallallahu sa wa sallam direct amul wasita du tariqa boo xam ne itam faron la ci benn tariqa loolu itam faaw ñu xam ko du imtidaat ci benn tariqa du faron ci benn tariqa parce que ay njuumte la yoo xam ne dafa am yoo xam ne dañoo juum ci ni ñuy interpréter bi yi parce que rupture bi am diggante Sëriñ Tuubaa ak tariqa parce que li jiitu rek mooy Sëriñ Tuubaa ak tariqa yi jiitu woon ci la njuumte lañ njëkk a amee. doxin fi mu daggee lañ ko ak ñu bari dañuy njëkk a juumee ci da ngay dégg ñu naan Sëñ Tuubaa nekk na xaadir ba caagu bàyyi ko nekkub tijaan ba caagu bàyyi ko nekkub chadali Sëñ Tuubaa mos a nekk tijaan mos a nekk chadali xaadir yi la mas a doon ba mu ca jógee tariqa boppam la am musta hmm. jaar ci beneen tariq hmm. jëloon na nag ñaari wér di ñaari tariqa yee waaye musta doon muridi tariqa bo tariqa yooyu musta am hmm. loolu moom ku ko bëgg a saxal nag ñu andil firnde yi waaw lii ñu wax firnde yi moom jege nañu lool mi ngi ci téere yëpp daal dafa mel ne ci gàttal bu ñuy xool dañuy gis ne sëriñ bi hmm. am na lu ko taxoon a jóg am na amoon détermination ay objectif yu ko taxoon lii sax laa bëgg a wax ne hmm. lii lépp nag hmm. daa am loo xam ne mooy serro bi serro bi sëñ Basiiru nat wax na ko ci mën a waaxil xadim muy lu lu yéeme mooy ne lii lépp mooy zahir si feeñ ci kaw waaye daa am lu nekk ca suuf mooy secret ba secret mooy sëñ Tuubaa yàlla da ko waajal ngir am lu mu bëgg mu doon ko li yàlla waajal na ngir mu am lu mu bëgg mu dooni ko faw waaw kay day am parcours bu mu jaar mm-hmm. pour bu ca yegg man koo mate man koo doon mm-hmm. firnde ji itam ci zahir si nit ñi gis ak li ñu sukkandiku ñu man koo mën a nangu man ko mën a xam mm-hmm. ndax yàlla daf ko waajal mu war a doon koo xam ne day nekk waaris bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca anam ga gën a mat goo xam ne kenn mësu doon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ana ay firnde yu bari firnde yu wér la ci wax bu ko bëgg a xam demal ci hmm. Minanul Baaqil Qadiim da nga ci am lu leer naa ñi hmm. boo léegi nag boo ci bëggee looy weddi bu la soobee mën ko weddi moom même ci melokaan yi ni mu daan dunde ci lépp oh, ni mu daan tarbiya dëgg la ni mu ko nuroo yonent bi dafa yéeme sax yéeme na yéeme na hmm. moom mooy waaris Muhammad yi dëgg-dëgg moom ci anam ga gën a mat ci lu dul waxi taasub kon dajale googu nga xam ne moom moom la yàlla namoon mu war ko dajale mm. doon koo xam ne itam yàlla daan nam mu war a dajale mbooleem asraar ak imdaadaat yi doon jóge ci tëbb yi doon jóge ci góor yàlla yu mag ya mm. muy Cheikh Abdou Khadir Jilani Cheikh Abul Hasan Chadili Cheikh Ahmadou Tidiane mm. tëbb yi daan jóge ci ñoom mooy kii war a dajale yooyu yëpp ci benn nos di ko def ci nit ñi te loolu feeñ na ci doxalinam loolu moo waral parcours am dajee feeñ loolu moo waral mu jaar fii mu jaar fépp dajale li mu dajale lépp ba bi mu bi mu ci yegg si li mu li mu yegg si da koy mate sëkk maanaam yëf yi dee tegee ci loxoom hmm. da koy mën a yor taawu ko hmm. te kenn du ko mën a weddi hmm. wala boo ku koy weddi doo ko mën a weddi teg ko ci ay preuve xam-xam boo doo ko man moo tax itam suñ borom dajaleel ko secret yi tariqa yu ñetti tariqa yooyu jàlloon yëpp ci tariqa boppam bii te loolu boo demee ci minan baaxil xadim wax na ko fa leeral na ko ci leeral na ko ci xasidaam góog yi nga xam ne itam mooy xasida googu mu def ci wér du ma xasu di ca wax فجمع الكل وزاد وارتقى بمحكم الكتاب نعم مرتقى فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخاف كبتا sëriñ bi suñ borom da koo donale boot yooyu yëpp mu dajale ko ndax noonu ma ko waxoon léegi ne ca géej gi nee na la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal foofu ñaar mbir dafa am yu mat a xool sëriñ bi dafa wax ne ci géej gi Seydina Jibril dikkal na ko andil ko ñetti tarixa yëpp amna na foo xam ne noonu la ko faxee am foo xam ne dafa wax ne. ñetti tarixa yi mooy xaadiriya tijaaniya zaadiriya xaadiriya zaadiriya tijaaniya am foo xam ne dafa wax ne ci géej gi itam rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam dikkal na ko fa andil ko ñett yëpp xaadiriya zaadiriya tijaaniya boole ko ndigali al mashayikh mashaayix asala ashiraaf ay ibaara bii la jëfandikoo bi idnin min al mashayikh bi idni al mashaayix ashiraaf salaasa ashiraaf salaasa isni bi mooy wane ne kon am na ci sañ-sañ bu toll ne bañ ci amoon ñoom tigi loolu laa bëgg a wax mm. loolu mooy li ci am solo nag mooy li ci yees mooy dañ ko doonale mbooti yëf ya doonale ko tariqa ya Sëñ Tuubaa wax ko ci barab wax ko ci benn barab wax ko ci ñaaral wax na ko ci fu bari ci xasidaam yi mm. problème bi mooy ñi ngay dégg ñuy wax da ngay xam ne mooy gëstuwuñ mbir ni Sëñ Tuubaa li mu wax mm. léegi nag ku ko gëstu ba noppi moom weddi ko loolu moom beneen problème la te sax nag man mbir mi dama gisul luñ ci war luñ war a mën a weddi hmm. ndax lu suufe amul ci lépp lu mat la ah, dama yaakaar ne wérdu yi fi nekkoon hmm. ak azkaar yi ak bi gaa yu baax yi euh, day bu ëggutoon ci benn dayo bi hmm. duñ ko jël di ko yëkkati di ko joxaat sëriñ bi di ko jox ndigal man dama naan tëskiye la tëskiye la waaw <laughs> tëskiye na turuq yooyu ndax ñëw gim ñëw mujj leen am yëfi boppam am këru boppam am ndabul boppam mm-hmm. ba noppi wax ci ñoom li mu wax ci ñoom wax li ko ci yàlla defal loolu mooy wane ne daf leen tëskiya bu baax kon waroon doon contraire mu ñëwoon mm-hmm. xebat leen wala mu wax ci ñoom laneen te mm-hmm. defu ko tey benn logique bi mu doxee naka jëkk ni la ma sa doxee ndax bu fàtte ne ba muy wax fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi wa leen yaxida boobu sëñ Tuubaa mi ngi toll ñaataat ci fanweer ak ñett ci la sëñ Tuubaa toll ca Mbàkke Kajoor boobu doon ab xaadir piir di dooge woote aw yoon di dooge woote ab daawa la bëgg a wax mbooloo mi jóge fu ne di ko fekk si te teewul mu ne sawa un intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qatan ala sawaabi id kulluhum yad'u al muridina ila taat rabbil arsh haytuma jala daal di cee teg lam ca teg bul ci weddi kenn bu ci jéem a ŋàññi kenn bu ci jéem a reetaan kenn loola moo xam ci fanweer ak ñett ba bi mu ñëwee ba ci juróom-ñaar fukki atam ak nangam. Mhm. loolu la wéyaat di ko wax. Mhm. lenn lu ci soppi ko amut. mu mhm. demee ba am yëfi boppam lu beru itam teewul loolu la di ko wax. wormaal leen worma jim leen wormaal. jox leen bi mu leen jox. kenn mënut a génne fenn fu mu waxee wax joo xam ne. day suufeel seen daraja wala mu leen di jéem a gotti wala dara loolu amut. ndax suñu tubaab loolu du du doxinam. waxuma la sax ñooñu waaye euh, seeni donga sax mosu nee def loolu. waxuma laa ñoom kenn waxalewut loolu. kon loolu mooy aw nam Euh, lii nag kon doon lu yees nag ci tasawuf it nag gépp ndax tasawuf dëgg la moom mii na fi ci luñ xam ci ku jàng téere tarixa yi moom ak mm. tarajum yi loolu du lu ñu débat lu lu am la mm-hmm. maanaam sëñ Abdou Khadir Bousso mën a nekk ab ci tarixa sàngam ba noppi dem jël wirdu beneen tarixa ngir barkeeloo ko am ci ijaaza di ko jox ñeneen loolu xamees na ko ci ñu bari ci ay kilifa ba ci Sénégal ak Mauritanie gii am na fi ay kilifa yu ñu mën a tudd jëru Sëñ waaye am leneen loo xam ne lu yees la loo xam ne moom mësees ko gis ci tasawuf ci lañ xam bopp mooy ku ñëw yonent bi alayhi salaam dajaleel ko mbooleem tariix yooyu ko jiitu woon joxaat ko ko ci ndigalul boppam lu mu ci boromam loolu moom Sëñ Tuubaa ko njëkk kenn gisewu mësuñ ko wala boog man ci kam li ma gëstoogun boog gisaguma ci keneen ku lu mel loolu dajegoon moom kon mooy ne loolu kon du lu yeesaat ci tasawuf bépp loolu nag dëgg la yees lu yees moom faw du mën a dugg ci nopp euh, boppi ñu bari yees gum yees xaj na mën naa juural ñu bare bari duñ ko mën a comprendre faw ñu weddi ko wala ñu am ci yeneen i gisin waaye loolu moom meneen mbir la en tout cas bi mu amee lan la jur mooy sëriñ bi loolu moo waral bi mu jógee ci géej gi muy joxe tariqa yii nii ñetti wird yii mu di ko joxe nga xam ne nit day ñëw bàyyee tariqa ba mu nekkoon di ñëw di dugg ci tariqaam moom sëriñ bi di jaayanteeg moom waaye bu ñëwee tarixa ba mu nekkoon moo xam xaadiriya la wala chadiliya wala tijaaniya la mhm. sëriñ bi léeg-léeg mu jox ko wérdu boppam mii muy maaxuus waaye léeg-léeg du ko jox maaxuus waaye wam yoroon muy xaadiriya wala chadiliya wala tijaaniya mhm. moom la koy yeesalal mhm. waaye bu ko yeesalal da cay boole nag lu am solo loo xam ne mooy rupture bi te muy jumla bu ñu di faral di bàyyi xel te sëñ Madeleine Diop daga na net mi nan baax irwa nadim mooy dalay wax ne la da koy jëlaatal ba nga yoroon di ko wéyal di ko jëfandikoo waaye nag ci yéene yi ne ci man nga ko jëlee loolu rupture la ah. waaw loolu du xasu daa am lu tegtale ok mooy ne hmm. Issa Gueye démb bi muy ñëw hmm. ab xaadir yi la wala ab tijaan la wala ab la hmm. waaye tey jii doonatu ko dëgg la nag même wérd wam yoroon di ko wérd démb ak bërki démb ak daaw ak daaw jéeg moom la wéy di ko wérd ba tey waaye yéene jëm ko doon wérd ak isne bi moo bokkatut ok bu jëkk mi ngi ko doon wérde di ko jëfandi jëfe di ko liggéeye ci yéene yi aju ci tarixab cheikh diw mm-hmm. ak i sartam mm-hmm. tey mu ngi koy liggéeyaat ci yéene yi aju ci cheikhul xadim mm-hmm. ci tarixam ak i sartam doon ko liggéey démb ci sanatob cheikh diw bu jaar ci diw jaar ci diw jaar ci diw ba yegg ca cheikh diw mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy liggéey ci sanatob jële ko ci cheikhul xadim mu jële ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci lu gaaw loolu moo waral signal yu sekoonaar bokk ci kàngam yoonu murid tuuti ko xam yàlla ku ku mag di woon borom xam-xam gànnaar la jébbaloo ci sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi jox ko wérdu tijaan bi mu yoroon la ko sëriñ bi yeesalal wax ko lii ma la wax léegi gannaaw bi signal yu sekk wax na sëñ bi ne ko bu ma buñ ma laajee sanat bi lu ma leen di wax sëñ bi da koo bindal ab lettre la mi ngi ci sama téléphone bii dana leen da koo bindal ne ko ku la ko laaj maa ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox te loolu lu la boo demee Daarul Muxti yi maam Cerno Birahim radiyallahu anhu sëriñ bi joxoon ko ay wërdu yu bari ni yore woon wërdu maaxusu bi nga xam bi rekk ko jagoo kenn mosu yor noonu la ko sëriñ bi joxoon wërdu xaadir yi noonu la ko joxoon wërdu chadil yi ak nasir yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay awraat moom it sax mu tasaare ko ci biir ay njabootam am ñoo xam ne bee la leen jox am ñoo xam ne bee la leen jox am ñoo xam ne bee la leen jox sëriñ Baara Ñang ca Gede radiyallahu anhu sëriñ bi wërdu tijaan woowu mu yeesaloon sëriñ Aliou Sekonar mom la ko defaloon moom itam ak ñeneen ak ñeneen lolu kon. ñu xam la dañ koy jël jëlu taalluq. ok legi nak fofu mm. ben sew sew fi nekk mata rañé mm. muy lan muy ki maanaam wérdu woowu señ Baara Ñang jële won ci señ bi muy wérdu Tijaan. Mm. moo wala bok ñukoy koy tuddee wérdu Tijaan. wala sëñ Aliou Sekonar wala mam tierno ci Qadriya. wérdu yoyu legi buñ ko dé tuddé ba léegi wérdu Tijaan wala Qadir wala shadiri تجاوزا رك لا مانام لي علماء البلاغه دي باعتبار ما كان رك لا آه. مانام ندخ ورد وي اذكار لا يوخان اك ترتيب معين بوخان عدد معين بوخان دي ديو لا كون ديكونا خامي واي لغي بو ني وخ حقيقه دونتو وردو كوكا ندخ سند بيم جوغي جوغي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديريكت دونتو سيرين بوبا واي شيخ الخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديريكت كين دوخ كون موي لي اي اوراد لا من اوراد شيخ الخديم رضي الله عنه moo nekkoon kon Serigne ci ci tariqaam dajale gi mu dajale. Mm. daa am ñetti ñeenti werd yu bokkut. Mm. am na werd woo xam ne moom rek a ko mas a am. Mm. kenn mësees koo xam ne kenn ku mas a jiitu. ci tartiib ak adat la mu am. am ñetti wird yoo xam ne am na ñett ci aqtaab yi fi jiitu woon ñu ko yoroon ci tartib yaag adat yaag na mel ñu donale ko ko mu yor ko léegi waaye teewul yëpp ay yëf boppam ok loolu mooy sew sew bi nga xam ne bu mat a ràññee la bu mat ca bàyyi xel ba ki ko jël mm. nekkatut ci tarixa sàngam wala wérdu sàngam mm. waaye wérdu Cheikhul Khadim la yor tarixa Cheikhul Khadim ci la nekk mm-hmm. wax ji leer na nañ ñi kon mel ne lépp rek dafay gën a fésal dajale gu yàgg dajale mm-hmm. ci biñ ko xamee mu nekk tut tànk mm-hmm. ci njàng ma nam dajale fànn yi xam-xam yépp ci eh, biir kër gi na tërbiya ba nam demee ak tarxiya gi ci bi muy sos yoon wi ci comme ni nga ko tuddee daawa ci eh, bi mu koy njëkk a woote ci wër gi mu doon wër dajale gi mu dajale lépp loolu yi dafa mel ne noonu la ko suñu borom fayee it bi mu ñëwee mu dajale mu dajale yëpp mm-hmm. dajale yoon yi dajale wërd yi am ci sañ am sañ-sañ ci yëpp waaye foofu bala ñëw ci ñu xuus ci wërdu ma xuus ndax yaakaar naa ci la ñu mujje mm-hmm. fi may bëgg a dem rek mooy ci diggante tariqa ak wërd mm-hmm. gën lëkkaloo la am ndax dafa mel ni dañuy dégg ci wax ji boobu ba léegi dañ koy lëkkale bu baax a baax a baax bëgg naa ñu gën a xam dëgg-dëgg daal lan mooy tariqa ndax ci suñuy biir gëstu ak suñu expérience bu gàtt liñ ci jot a gis mooy ñu baree bari ci nit ñi dafay mel ne euh, ñi ñu bokkal diine ji dafa mel ne ñu baree bari duñ nangoo itlaaq ak tariqa jëme ko ci yoonu murid waaw maanaam muridisme ñu baree bari jàppewuñ ko ab tariqa ndax xëy na dañoo jàpp ne dafa aju ci ab tariqa wala dafa banqaasu ci ab tariqa bu dee ñun nag ci suñ biir dañ koy jàppee ab tariqa di ko défendre nga xam noonu la demee ndax am na wirdu boppam ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi li ma bëgg a xam foofu mooy ñi ñuy seetaan ñëpp di ñu topp ci e, jumtukaayu xarale yi ñu jàkkaarloo ñoo xam dëgg-dëgg lan mooy ab tariqa ak lan moo ko lëkkale ak wird ak nit li muy woote kañ lañ koy tudde tariqa ak kañ lay bañ a nekk ab tariqa jërëjëf sëñ Abdou Khadir boo demee ci téere bu tudd itxaaful xalaayiq e, leral na ca mafhumu tariqa moy lan mhm. ci leeral yaatu euh, tariqa dafa am ay da danay firi mbolo mo xamne ne dañoo ànd ak ben serigne bo xamne ne dañoo aju ci mom mu len di terbi ci yoon da danay firi yeen mana yu bare bare danay firi tam wird manam wird dañ koy wax jubli tariqa waye boba nak ban wird lay doon lolou mo mata set xel te loolu sëñ Basiru and na ko ci mën a baax itam ci noonu ma ko doon junje léegi maanaam sëriñ bi nga xam ne daa jële ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wird woo xam ne dafa am tartiib xaas am adat xaas euh, jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuñ ko toftalee nuñ ko toftalee ak ay limi boppam ay limi ànd ak charte ya koy encadré yu koy tënk loola dañ koy tuddee tariqa mm. ci loolu kon Sëriñ Tuubaa yor na tariqa ndax wirdu maaxuus moom lu leer la ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam la ko jëlee yaqazatan laa manaaman te nit sax dana jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam manaaman waaye moom yaqazatan la ko jëlee ci moom te wax na ko fu bari bamtu ko mu am ab tënkiinu boppam am ab ay limi boppam ci noonu ma ko waxee léegi yoo xam ne moom mësees ko xam ci keneen ku jiitu ak ni mu ànd lépp boo ko boolee am ay chartam yu ko tënk itam nag ay charte boppam yu ko tënk yoo xam ne ngir nit di ko jëfandikoo day ànd ak tënku ci charte yooyee kon lii moom tarixa la ci lu wér am na nag beneen mafum ci tarixa boo xam ne mafum bu kawe la bu xóot boo xam ne ci état xalaat boobu mooy wax boo demee waliyulaahi dahlawi am naq la ñàkk na ci boo xam ne ci mbindam la jóge di wax ci ne tarixa moom maanaam ab xaqiqa la boo xam ne lu yàlla jox kenn ci gaayam mi la doon boo xam ne ci azal la koy jox laata lii yëpp di xew loola nag bu amee ca la ko suñu borom di tàggatale ruu yi mbindeef yi ba mbir mi buy wàcc ci moom ruu yi dañ koy nangu nit ñi dañ koy topp ci mu neex leen ak mu naqari leen euh, yooyu yëpp nag buñ ko xoolee dañuy gis ne day daje sëriñ bi ci lu leer ci lii mu yor bi mu ko yoree <laughs> mm. tàggatu gi yàlla tàggat gi yàlla tàggat jaam ñi ca jamono jooja. ba fii ñu koy waxee si jotaay bii. nit ñi di jóge fu ne. nga xam ne ay nit nekkoon nañ ci ay tariqa bàyyi doonoon ay kàngam sax nag laa waxuma ay ay ay mbalxas yu mel ne ay isaagee nii. Hmm. waaye ay kàngami nit yàlla. yoo xam ne dañoo liggéey ci tarixa yi nekk. Hmm. ba am cee cër. Hmm. doon ay borom xam-xam yu ne jar xam li xew lépp dara ump leen. am cër yu kaweet ci seen borom. waaye am luñ bëgg a jot luñ mënut a yegg. bàyyi fa lañ nekkoon ñëw ci Seexul Xadiim loolu tarixa yi ma tudd yëpp bu ci ne am na ci ay nit ñu ci jóge ñëw Serigne Touba. Mm-hmm. jaayante moom ci tarixam bii. Mm-hmm. mu teg leen ci yoon wi ba yeggale leen fi ñu bëggoon a yegg. Mm-hmm. kon euh, tarixa moom ci ay mafahim ay ay. ay maanaam ab concept la boo xam ne ci tasawuf. daa yor ay déggin yu bari. léeg-léeg ci barab bi ñu koy tuddee rek. ak déggin wa nga xam ne foofu euh, déggin wa. siyaq bi mu nekk daal mooy mooy. firi contexte bi waaw kay waaw contexte bi mu nekk. mooy firi déggin wi nga xam ne moom la am fii liñ ci jublu. waaye euh, te sëriñ bi waxal na ko boppam. Mm-hmm. loolu itam nañ ko xam ndax xam nga dafa bari ci ba ca ba ci ñun sax ñoo xam ne léegi da nga koy dégg dañ koy wax dañ naan sëriñ Tuubaa yurutu tariqa mm-hmm. loolu damay wax ne xam naa ñu bari ci nit ñi yaakaar naa ne la leen ci juumloo mooy benn waxtaan bu sëñ Abdul Ahad radiyallahu anhu defoon baat bu mu jëfandikoo boo xam ne ni ko nit ñi jëlee bokkut ak mu jubloo wax mm-hmm. te li tax ma ne bokkut ak jubloo wax mooy da ngay diglu wax ja lépp ndax wax moom jum mën a doon boo ko joxatee ci biir yi wax rek génne ko ci contexte am mën naa firi lu bokkut ak la ca borom jublu sëñ Abdou Lahad boobu dafa wax ba ne Serigne Touba wóotuwutub tariqa léegi am ñu ko daal jégg jël joxati jumla booba rek phrase booba rek di ko wax sëñ bi wóotuwutub tariqa sëñ Touba kon wóotuwub tariqa sëñ Abdou ko wax déedéet sëñ Abdou jublu wax loolu balaa ngaa xam lan la jublu wax da ngay dem diglu wax jëpp ba mu daanoo nga jël wax ji kon ci biir wax ja fa mu dugg nga xam ne kon li sëñ Abdou Lahad jublu wax mooy sëñ Touba wóotiwut ak tahazzub la bëgg wax wootu wutuk par parloo maanaam déggiinu tariix yi nit ñi am tay nga xam ne ay mbolo yu par parloo ku ne naan sama serigne sama serigne ci xas ci la sax taaga xatalu dal loolu la bëgg wax loolu yi la bëgg Sëriñ blad bëgg wax mm. waye Sëriñ blad du dàq mukk lo xamne Serigne Touba da ko saxal. Mm. wala moy dàq mukk lo xamne mag ñaan doon Serigne Touba. Mm. ta doon ñuko xam dund ak mom lu yag lañ dund ak mom dañ ko bind saxal ko ci seeni téré kon faaw dañu dala wax ji rek ci contexte bi ko Serigne bi doon waxe Sëriñ blad doon waxe radiyallahu anhu Euh, sëriñ bi dox ko haadi tariqati wa fiha almau taraiqa alqawmi alladina jamaau mm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bari da mm. ci boo demee ci Ighnaa'ul 'Aliim sëriñ Maam Lamin Jóob Dagana mm. wax na ko ci ay waxin yu bare bare bari yu loolu moom lu leer la loo xam ne amul lu ñuy nattable amul lu ñuy deng deng amul lu ñu sikk sàkk amul lu ñu sikk sàkk te yi accompagné yi am ci tariqa yëpp itam am na ci biir tariqa muridiyya euh, waaye nag faaw ñu bàyyi xel lenn am na loolu dañ ciy faral di juum parce que Sénégal nit ñi sax laa bëgg a wax rek nit ñi du Sénégal dongo maanaam dañuy xam ne tarixa yi dañoo bari dañoo yaatu tarixa yi nag am na turuq yoo xam ne ñooy turuq mustaqil la yi nga xam ne dañoo beru mm-hmm. doonuñ ay bànqaas ci benn seen morom waaye dañoo jokk ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam direct mm-hmm. yooyu tariqa murid yi ci la bokk wax naa ci léegi li ma ci wax yaakaar naa doy na jëru dëlati waaye ci biir tarixa yooyu nañ xam ne dañoo wuute nag ay doxin ndax wuutee doxin moo tax ñu ñu wuute doon ay ah, ah. bu ñu bokkoon ci benn doxin ak ci ci lépp ah. du aajo kon ñuy doon ay tarixa kon mën naa dekk benn tarixa boo xam ne day continuer dem rek waaye nag dafa mel ne dafa am ci yenn yoo xam ne seenu doxin dafa mel ne dafa jeexital ci nit ñi ba tax ñu jàpp ne faw tarixa noonu la war a doxe te fekk nañ bàyyi xel na am na tarixa yu luñ jiitu yoo xam ne doxewuñ noona ah kon mooy ne it tarixa mën na leen mujj boo xam ne man naa bañ a doxee ak ñoom noonu mën naa bañ a doxee noonu mm. maanaam benn tarixa la bu am doxiin yooyu mm. tarixa yëpp mën nañoo bañ a doxee noonu mm. léegi nag euh, bu mu jeexital ci nit ñi ba tax ñu jàpp ne maanaam tarixa yëpp nii la war a doxee te fekk demewut noonu faw ba balaa ngaa xam doxiinu tarixa ak wuute da ngay dellu ci histoire turuq yëpp tàmbalee ko ci ba jiitu ci biñ njëkk xam muy tariqa qadiriya wàcc jaar fi mu jaar ba yegg ci bii xool fawaariq yi am seen digganteeg wuute yeeg nangam ak nangam mm. ci boobaa ngay xam benn bu nekk ni nga koy classé xam ne bii moo am mm. xususiyaat yi mm. moo am fawaariq yi nga xam ne fa ay yëf boppam la moo am mumayisaat yi nga xam ne yëf boppam la baneen ba nga xam ne moom itam noonu la demee boobaa da nga mën a comprendre waaye bu fekkee da ngaa jëg bëgg jël benn wala ñaar atte ci yëpp boobaa njuumte lay jural ndax danga nga atte mbir ci loo xam ne waru ko woon a atte ok ndax amu ci benn boo xam ne ci yow la ñu war a jël xiyaas yi ci des yëpp ci yow déedéet déedéet loolu amu ci amu ci benn tariqa boo xam ne moom la ñu war a jël xiyaas yeneen yi ci des yëpp ci moom loolu amut ndax ñoom ñëpp seen balluwaay benn la muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon loolu moom lu mat a bàyyi xel ndax damaa gis ne loo dana dal lu bari ci gëstukat yi dana dal lu bari bari ci gëstukat yi waral question bi sax hmm. kon dafay mel ne ci biir waxtaan wi leer na ci nañ ñi eh, wérdu mooy lan tariqa mooy lan muy loo xam ne boo ci xool rek da ngay xam ne da ngay xam ne lu indépendant la loo xam ne sëñ bi amal na ko boppam leer na ci it euh, relation bi sëriñ bi am ak yeneen tariqa yi euh, relation bi sëriñ bi am ak yeneen wérdu yi yooyu yëpp yaakaar naa leer na ci nañu waaye fi nga mujjee waxee yaakaar naa question bii di ñëw foofu lay jëm mooy tarixa yi bokkuñu aw doxiin ñàkk a bokk aw doxiin moo tax ñu ñu naan tarixa sàngam ak tarixa sàngam ak tarixa sàngam kon foofu li ñu ciy déggee mooy kon tarixa bu ne am nga sa yoonu bopp sa minhaaju bopp tarixa bu ne am na sa principe bi bopp am na lu la ak beneen tarixa ci lu gàtt mel na ne waxtu mu ngi ñuy xaw a mi xaw a tànc ci lu gàtt rek ci de deux minutes Serigne Issa boo ñu bëggoon wax lan mooy mumayyizaat lan mooy ràññeele wala lan moo wutali dëgg dëgg dëgg tariixa muridiya ak yeneen turuq yi am na ci yoo xam ne ñoo koy bokkale ndax ñoo bokk diine ji ñoo bokk ballukaay bi mu yonent bi sallallahu alayhi ñoo bokk yenn ci ay jubluwaay waaye lan moo ràññeele yoonu murid dëgg-dëgg ci aw doxalin ak ci euh, jubluwaay euh, loolu day xam naa ne am na loo xam ne sax boo ko waxee mën naa am lu mu niru waaye bokk na ci yi ko le muy xidma ci la bokk xidma doonte na nag am na ci tariixa yëpp nag loolu faaw ñu xam ko ndax mbirum tasawuf la mu yàgg rek naka jekk waaye Serigne Touba da koo dundalaat ci geneen anam ba noppi yaatal ko ci aw déggin ak ci jëf yi itam loolu doon loo xam ne luy dox la di di di wëy ba suñ jamono tey jii ñu koy waxe muy feeñ di di di di di di wu ci ay mbir yu bare bare bare bare xidma daanaka mooy looy yëngu rek looy yëngu rek mhm. lu mu mën a doon mhm. nan ci jublu jëm yàlla loolu rek la mhm. maanaam di di di di di yëngu di jariñ nit ñi ca wet goo ma ne mën a doon di jaamu yàlla ci ay jaamam tënk boobu la yaakaar naa ibaara boobu suñ fal la ñoo xam moo ko waxoon radiyallahu anhu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi hmm. jaamu yàlla yi nag lu yaatu la ndax jaamu yàlla yi nit ñi ñoo ci jiitu waaye du ñoom dong hmm. rab yeeg ndegment yeeg njanaaw yeeg hmm. yii di dox ci suuf ak yëpp ci lañ bokk kon jaami yàlla yi yaatu yooyu yëpp ak nature beeg li ci aju lépp jaamu yàlla ci ñoom te mooy di leen di jari di di di sotti say njariñ ci ñoom jëme ci ñoom waaye lépp nga di ko def ngir jëmmi yàlla nga xamne du ci am lenn loy def lo xamne dang koy def ngir am muqabil maddi am lo ci wara jot ci ak payooru aduna go ci wara jot hmm. waye jëmmi sun borom ak liggéeyal sun borom ci jublu hmm. mo ci don sa yitte hmm. ak it himma muy yeesal gi nga xamne mom la yeesalat pas-pas pas-pas himma pas-pas ta moy li nga xamne mo moo daan ñulug gaay yalla yi bañ jóg soobu yoon yalla seen yitte jep tam ñu acc ko ci seen borom nga xamne ne mboolem aduna adduna li ci aju du doon seen mbir maanaam yooyu yëpp dañ koy jéggi ci seen i xol ak seen i xel ba seen yitteeg seen seen bëgg-bëgg bépp ñu ngi koy aj seen borom ak seen ngërëmul borom xam ne adduna ak li ci biiram bu ko nit ki amoon itam te amul ngërëmul boromam day mel ne amul dara waaye bu nit ki amee ngërëmul boromam lum ñàkk ci adduna ak li ci biiram itam day mel ne am na lépp mm. euh, loolu itam ci li sëriñ bi yeesalaat la bokk bokk ci yi nga xam ne mooy ràññatle Euh, yoonam wi ak ñeneen mm-hmm. ba loolu sax bokk na ci li jëkk a fésal ñi ànd ak moom seen melokaan mm-hmm. ndax melokaan woo ñu mel ci pas-pas ak yitte ju kawe mm-hmm. ba may leen itam cër yu kawe yu am yi ñu am ci yàlla ci ay jamono ju gàtt ay diir yu gàtt-gàtt yoo xam ne euh, xaj na bu ñu doon xool nii rek du du de su ko xalaatee noonu xaj na euh, kon loolu mënees na ko cee gis mënees na cee gis tam ba tey ci yi koy ràññatle lu mel ne wàllu liggéey mm-hmm. jaani bu kes bul xalaal mm-hmm. fonk gi ñu ko fonk fonk gi ko fonk waaye muy loo xam ne itam fonk gi ñu ko fonk lépp day duggaat ci biir himma ji ñu waxoon mu yitte mm-hmm. ndax fàggu gi lu lew loolu wax ju am solo la maanaam sëñ bi du ko tudde liggéey wala sëñ Tuubaa ci mbindam da ngay gis ne baatu amal bu ko jëfandikoo ñaare jëf ju baax la ci jublu jaamu yàlla waaye jublu ci liggéey ni ñu koy firee ñun léeg-léeg xidma bu ko waxee itam maanaam yaat la ci jublu da ci jublu jaamu yàlla ak liggéeyal mbindeef yeeg jariñ leen ak lépp la ci dugal bu dee nag liggéey bii nii muy travail bii kasbul xalaal lay wax wala talabul xalaal iltimaasul xalaal xeet yooyu la jëfandikoo wa talabul xalaal li fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri waxami ak yooyu iltimaasul xalaal kulla saa bi aklihi yabdu huda wa taa nga gis ne dafay mel ne kasbul xalaal sax boo ko xoolee ci ci wet. day duggaat ci xidma da ciy dugg bu baax ki koy def. dafa am objectif bu mu. looloo tax may wax maanaam mooy. da ci liggéey. Mm. wetti saw ñaq ba sonn ngir am. Mm. waaye roof ci yow pas-pas boo xam ne mooy dugal ci yow xalaatinu xidma te mooy. Mm. yaa ngi sonn di liggéey liggéey bu metti bay wetti saw ñaq. ba ku la romb di la yërëm ak war sax di di la naw ci sa njàmbaar. nga mën caa daje gañee ca lu bari lu kenn xam nu mu toll ci ay milliards waaye loola du doon sa yitte milliards du doon sa yitte waaye lan mooy doon sa yitte mooy milliards boo ko amee ba noppi da koo def ngir jëfe yàlla ndax suñu borom dañoo digal ñu mm. sàkk lu leew mën a suturloo ñoom suñu njaboot mm. waaye itam da caa amaat beneen objectif booy visé ci sa ginnaaw mm. mooy boo ca dajalee lañ nga ca dajale ba noppi mu doonaat loo xam ne lépp da koy financé waat ci yoon yàlla loolu moo feeñal sëriñ bi bi mu fi nekk organisation bi mu tëral te loolu mooy dox ba léegi ci yoonu murid nga xam ne gis nga sëriñ bi sëñ mën lumbee nga fële yor tool yu rëy daara ju mag mbooloo nekk fa di bay di génne ay ton yu kenn xamu nu toll ci mbay maam Cerno Birahima nga fële di def noona Cheikh Ibrahima Fall nga fële def lu mel noona maam Cheikh Anta nga fële di liggéey ci commerce mm. di wàcc ay bateau di di liggéey ci commerce ci anam bu xóot Cheikh Ibrahima Fall noonu ñeneen ak ñeneen ci mag ñi kenn mënu leen a lim dañoo bari macha allah euh, waaw waaye ñooñu ñëpp lañ doon liggéey bu noppee fu mu jëm maanaam dañ doon liggéey ñi leen ci daara jeeg ok fa mu jëm moo ñii seen mbay mi mépp sëñ mën dumbe mbay mi li bari bari bu noppee mooy dundale daara ja Cheikh Ibrahima Fall noonu diw diw diw diw diw la ñuy bàyyi lu mu bari bari ak la ci jóge nu mën a toll bu noppee lépp la ñuy taxan yóbbu ko ca daara daara sangam daara sangam daara sangam ñoo yor seenu dund diirub at mi mm. ñoo yor barab sangam barab sangam barab sangam seenu dund diirub at mi nga xam ne li ñuy bay li muy génne ci alal ba ñëpp di ko yëm waaye am na fu ko tax a jóg maanaam du du du lu ñuy liggéey ngir wut xaalis. Mhm. ngir am xaalis rek tox ko jóg. Mhm. maam Cheikh Anta may nekk fee di di di di di di. di commerce di di wàcce ay bato. Mhm. gis nañ uh, at moomu damaa teelatu at mi bato ceeb boobu mu wàcce woon ci porum Ndakaaru bii. mi tonni ceeb nekk fa. xiif bu metti am Sénégal. wàcce bato ceeb jox ko waa réew mi ngir yàlla. waaw loolu lu gën a kawe amul suñ bi. daana lebal commerçant yi ndaw yi sax. ba ba tey ba tey ko def. ak moom xam nga ndax ñii moom <laughs> maanaam dañoo réussir saa gox ne kenn ku ci nekk euh, doo sax bëgg tudd ndax boo ko tuddee boo yaxee da nga tarxiis far kon ne wax mm. ndax macha allah dañoo dañoo réussir dal mm. waaye kenn ku ci nekk da xool ne la doon def ak la mu réy réy réy mm. ak li ñu doon wuute wuute anam yu ñu doon liggéeyee waaye objectif yi benn la te mooy xidmaal jullit ñi moo doon objectif bi nga gisaat ne lépp tudd nga xidma tudd nga himma mm-hmm. tudd nga kasbul xalaal kasbul xalaal. dafa mel ne loolu nag tënk na lépp. aywa bu wér. ndax lii boo ko dajalee. Mm. lépp ci lay génn. Mm. amul dara lu mën a génn ñett yi. Mm. maanaam man nga wax ne lépp ci lay dugg. xam-xam jëf ju baax ak hmm. lépp ci yii lay dugg dara dugg génn. ndax yii yëpp day duggaat ci xidma. ndax yii day duggaat ci xidma. te xidma ak lépp boo ko boolewaatee himma. mooy li koy mooy li koy ñuluk. Hmm. mooy li koy li koy doxal. Hmm. ndax ku amut himma. mënut a xidma dëgg dëgg xidma mënut a nekk. nit ki kam ni himmaam toll xidmaam noonu lay toll. ndax pas-pas mooy lal ab xidma. xidma ndax xidma daa laaj mu sell. maanaam du du du ay actes yu nit di def rek ñu tuddee ko xidma déedéet. de yu nit di def rek moom du xidma balaa moo doon xidma day ànd ak yéene ji sell ja ko war a lal mm-hmm. ak jëfin woo ko war a lal mm-hmm. ca la muy def dëppoog lu sariya nangu mm-hmm. yooyu yëpp day daje ñu doo ko mën a tudde xidma kon day mel ne lam ko waxoon ne ko rabbi asxaabaka bil himma ca njëlbeenu woote ba boo xoolee da ngay gis ne loola moo togg lépp maanaam himma moo lal yëf yi dëgg-dëgg maanaam mooy li nga xam ne daal yitte moo lal dëgg-dëgg yi woote sëriñ bi moom lay jëfandikoo ba tey dëgg la dëgg la kon daal day mel ne moo laloon woote sëriñ bi ca ba mu nekk daawa mm. moo lal itam tariqab sëriñ bi bi mu nekk tariqa moo feeñ ci ñim yar moo feeñ ci ñim yar mm. di wéy di rogalaan ba ci suñ jamono tey jii mm. doon lool ba fii ñu koy waxee mu murid di feeñ na ci ñoom feeñ goog ay jàmbur sax seera nañ ko ba tàyyi mooy pësteef rek mooy pësteef bi li ñu firee pësteef mooy pësteef ci wolof ñu noonu ñu koy firee nga xam ne yow sëñ Abdou Khadir mii ca réew ya nga nekkoon gis nga ba tàyyi ñu nekk ci réew moomu ñoo xam ne ci yéen ñii lañ xamee yoonu murit mm. te teewul seereel nañ murit yi ay seere yoo xam ne mm. dara waralu ko lu weesu li ñu yar ci ñoom mm. maanaam himma bi ñu yar ci ñoom ak xidma bi ñu yar ci ñoom ba nga xam ne fuñ mën a ne pas-pas lañuy la ñuy dund moom la ñu nekke xidma it mooy seen lépp maanaam lu ñu mën a jariñe ab jullit danañ ko jariñ te amul lu ñuy séntu ci kenn ci xeetu muqaabil wala lu leen nit di jariñaat tayit luñ man ci euh, fegal nit lor danañ ko def murit yi am tawféex yi doo dégg doo dégg mukk ñu xas kenn hmm. wala ñu saaga kenn wala ñu lébu kenn wala ñu dàgg sant wala ñu dàgg sante kenn hmm. fu waxtu wu ne ay nit danañ leen wax ba lu luñ mënoon a dàgg sant luñ mënoon a xuloo luñ mënoon a wax luñ mënoon a coow hmm. waaye doo dégg seen làmmiñ te nag am nañ luñ mën a wax ni ñu am na luñ leen yare am na luñ leen tàggate loo xam ne adduna ak li ci biiram jëral leen génn ca loolu te am pas-pas bu rëy boo xam ne yar ci ñoom ba murit fu man mën a nekk ci kaw suuf. Hmm. boo jàkkaarloo moo xam ne kii ab murit la. xam ne kii taalibe Cheikhul ci natt. kii xam muy ci colko gi. day feeñ ci seen lépp day feeñ ci seen lépp. moo xam muy ci jëfin bi ba tey ci hmm. xam complexe gi ñàkk complexe gi eh, eh, eh, seen seen sëriñ lañ ko nuru sëriñ Tuubaa ci lu wér loxo yi noonu yi dëgg waaye kenn mosu seddu ci moom complexe mukk ci àdduna mosu ko am fenn moo waral julli géej gi moo waral daa feeñ ci moom ci hmm. anam yu yéeme ndax li may wax sénégalais moom dañoo am problème mu ñaar sénégal dañoo am problème mu jàng maanaam sénégalais bu jàngee rek soppi ko doon doon làkkoom jàng yor culture bu ñoom jàng sénégalais bu jàngee tubaab soppi ko doon tubaab ci colom ci waxam ci jëfam ci xalaatiinam sénégalais bu jàngee arab soppee ko bëgg doon arab jaawale diggante diine ji ak culture arab te ñaar yu bokkul lañ ci dara culture arabe yàlla toppaloo ñu ko yonent bi alayhi salaam toppaloo ñu ko mm-hmm. topp koy yàlla du ci fay benn nit tuyaaba lu toll ne wirgër mm-hmm. topp diine jël yàlla y fay nit ndax moom la ñu def loo mm-hmm. Serigne Touba nag ci nam nga gis làkku arab ak ni mu ko maîtriser ba nga xam xam-xam bu xóot bi ko yàlla may ci diine làkku arab ak ñëpp lu li doon objectif am mu di ko téye ba tey te mooy ne làkku arab ko fonk ko ngir lim doonu làkk waaye da koo jàng fonk ko ngir lim doon làkku alquran ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon diine ko ci baax bu duntoon ak diine yoonam nekk ci moom mook joolaa ak bambara ak séeréer ak man niñ ki la yemale dong ndax aw làkk dong la complexe bu arab musta feeñ ci moom bu daan wax ak wolof yii sama mas gi ni ñu def nga xam ne ba ma fi toogee léegi làkk naa fi nangami jumlay arab bu daan wax ak wolof yii hmm. baatub arab daw ko ñoom hmm. yu xereñ yu am balaaxa la daan wax ak ñoom yoo xam ne dalay lay yéem mm-hmm. buy wax ak arab ya wax arab yu set wecc yoo xam ne day mel ne kii déggul benn làkkwud arab mm-hmm. loolu nag moo dig mat mm-hmm. ak colam ak daraam lenn arab mos feeñ ndax xam na ne arab ak diine ji bokkuñ dara maanaam doon ab sénégalais pur africain pur doon ab bawol bawol pur ba noon ba noppi doon ab jullit bu mat sëkk ci anam nga gën a mat mën a représenter l'islam ci lu ne jaxasoo gi mu jaxasoo tubaab yeeg diir bi nekk ñoom lépp itam amul lu sol ne lii dee ci wee duñ jeexital ci moom du ci waxinam du ci doxinam du ci xalaat yi nam du ci daraam mm-hmm. maanaam ni mu meloon ni la mel ni la doon waxee ni doon waxee ni mu doon jëfe ni doon jëfe mm-hmm. dara lu soppeeku ci mu amut mm-hmm. loolu nag noonu nga ko waxee sëñ Abdou Khadir moo jeexital ci talibe yi ba fuñ mën a ne ba fan yii maa ngi koy wax uh, nit ca Ndakaaru maanaam da ngay gis ay kàngam ay cadre yoo xam ne ci état beeg ci lu ne maanaam buñ toogeek ak yow bañ wax la lañ nekk ak lañ doon dalay yéem maanaam ak yar bi nekk ci ñoom mm. tëli bi gi nekk ci ñoom melokaan wi dal gi nga xam ne mm. buñ ne dañuy bale wala dañu nàngam ñëw ñëw fii futtee ko laxasoog dara mm. sol ay dàll yu kenn xamul lu doon gën a nangoo taq nit ñi gën a nangoo yanu te buñ la waxee post yi ñu lañ doon da nga yéemu ci yàlla waaw te seen melokaan ci lépp dem noonu waaw loolu nag euh, yarub Sëriñ Tuubaa moo ko def ci ñoom loolu nag ay pexe du ay jéem du ay xalaat hmm. waaye yarum nitu yàlla moo mel noonu te it nitu yàlla ko xam ne daa am ndigalul yàlla ci def li muy def hmm. wax nañu sëriñ bi daana ko wax ne wa daayan ilallahi bari na waaye bi idnihi ji moo jafe hmm. sëriñ Tuubaa nag bi idnihi ji la ko yàlla may moo waral jeexitam ji mu am mu am ko ndax jeexit ji xam-xam ne jeexit ji ay pexe mënu ko maye jeexit ji ay xalaati ki théorie mënu ko maye ku jàpp ne ay pexe koy maye wala ay xalaati ki théorie ak propagande man nga cee daal tàmbalee sóobu ba xam ndax da am résultat yi noonu yàgg yaakaar naa ne da nga sonn waaye doo man a am résultat doo mën a am résultat mm. lii moom ndigal yàlla rek moo ko mën a maye mm. kon daal dafa mel ni wayu sëñ bi way gi mm-hmm. way gi sëñ bi wayoon ak ñàkk mm-hmm. complexe gi ba mm-hmm. tax ba mu nekkee ci loxoy nooñu fu mu toll di wax ak njoom yaa jumlatan xat sallaru bi dolalihim di bay bay àgg ci di wax ak géej gi di wax ak lépp loo xam jàpp na ne mën na koo jàppale ci li mu nekk loolu it feeñaan na ci feeñaan na ci murit gi bu baax a baax sëriñ Issa kon mel na ne euh, jot nañoo waxtaan ci ay thèmes yu baree bari tàmbali nañ ci dunduk sëriñ bi fi mu feeñee jamono bi mu nekk ci digganteem ak ay waajuram ak taxawaay yim amé woon ci digënté bi yooyu bi ci wër ba ak ni yoon wi sosoo ak rupture bi am ci digënté bi mu nekkee ci tariqa xaadiriya bi mu jëlee wérdu yeneen tariqa yi di ko ngir barkélu nam ko bayé ni sosé yoonu bopam ak relation bi continue di am digënté sëriñ bi ak ak euh, awrad yooyu ak wérdu yi ak turuq yi yakarna yoy yëpp wax nañ ci wax nañ ci principe bi yoon wi am ak liko ko ràññeele ak yenen yoon yi muy loo xam ne ñu baree bari sax dañu koo seede foog na xaw ma jaxate kale euh, bañ ko taalibe yi ko bàyyali woon ca mm-hmm. euh, aynu maadi yaakaar naa tudd mm-hmm. euh, bayit yooyu mu leen tatagale woon wane ca seen melokaan yi nga wax nii da caa feeñ lool mu rabbuuna ga xat xaddaw min aswaatihim xadda ka ab xaw ma nu ko waxeeti. Hmm. Euh, waaw xaw na ka annahum marda. waaw di wax rek ci seen melokaan di wax seen melokaan. dëgg la ci ci niñ mën a sonne ci nit. sell gi sell gi. loolu yoo xam ne dañuy damm seen i bët ba boo leen di gis da nga jàpp ne ñii ñu feebar lañ waaw jàpp ñu wéradi lañ daal ndax seen ay ay médecin wala nangam ak nangam ak booy wax ak ñoom dañuy sëngeem wan ne liggéey bu rëy laa leen joxoon nit waaye niñ ko songee ak bañ noppee amatuñ ci soxla ak ak it niñ mënee diglu seen ndigalu kilifa dafay mel ne loolu dafay feeñ ci murit gi ba tey nii mm-hmm. ak jamono lu mën a jaxasoo lu mën a yàqu lu lu mën a lëje da ngay seetlu ne waxdatul kalima daf daf fee am dëgg la fi ne boo seetloo dëkk bi léeg-léeg nga gis yëngu mel ne lu am waaye mu mel ni kenn faaliwut kenn waaye waaye Cheikh Mamadou Mountakha bu jëlee kàddoom wax rek day mel nit kenn amatul lu muy wax wala amatul fi ne da gis doole ji ñu am dafay feeñ ci wàllu googu bu sëriñ bi joxee ndigal ci ñu bale wala ci ñu jàng kay wala ci nàngam ñëpp koy songandoo ndax himma bi ak it am lu ñu lu ñu lu ñu bàyyi xel ci seen kanam mm-hmm. kon daal mu doon leen aw waxtaan wu am solo woo xam ne it jàpp naa ne euh, ñëw na ci waxtoom muy waxtu yi nga xam ne dañuy euh, waajal màggalu Touba gi ñu koy defee ci barab bu sell bi ji jumaay Touba ci peggul kilifa gi muy euh, sunu yaakaar tey ak ëllëg tamoo Cheikh Ahmadou Bamba xam naa kon Serigne Aïssa bala ñëw ci kàddu yu tëj yi dañ ñuy waxal rek tuuti ci kàddu soññe yu jëm ci wàllu werdul maaxuus alhamdulilah yàgg ngeen ci def ay waxtaan yàgg yeneen mbokk yi yàgg ngeen cee soññee charte yi yàgg ngeen koo leeral xeeti siyax yi mu am tëggin yi mu am yaakaar naa question yu baree bari yàgg ngeen cee tontu foog naa waxtu du ñu mayaat ñu ci gën a développé ni mu ràññee ko it ci wirdu yi yàgg nañ koo dégg ci jotaay yi am na ci it as lëf soo xam ne jot naa ñëw ci waxtaan wi waaye li li seetlu bi am nga xam ne ñu baree bari seetlu nañ ko mooy kàddu yooyu am na ay jeexital ba ñu baree bari ci ndaw ñi léegi jël nañ ko man euh, bi ma koy bi ma am na kilifa gu ma ci doon waxtaanal mu ne ma moom dafa seetlu ñi koy jël ci moom ñi koy jël si ci moom ci ay ndaw dafa bari lool mu ne ma nag waaye baax na bi mu jarat nasar ci ñuy bañ a débat ndax la wala du charte daal ne man daal man xam naa ne baax na ndax bariwut te itam ku ko defut it defoolu ko gën waaw muy kàddu yi am solo sëñ Ñaafi Buso Muxtaar moo jiite moo jiite ci moo jiite daayira wax dama lu xëy waaw loolu de moo ci am solo moom nga gis ne gone dañ koo dëgmal jigéen ñi sax léegi dañ koy jël muy lu am solo léegi nag ma bëgg foofu nga indi fi benn kàddu soññee rek buy gën a xertal ñi nga xam ne jotuñ ko woon a jël ak ñi nga jotoon nañ koo jël ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax jërëjëf sëñ Abdou Khader euh, wérdu wi de moom soññee bi yaakaar naa ne moom jërul muy gudd ndax rek li ci nekk mooy sëriñ bi radiallahu anhu moo waxal boppam ci lu mu bind te wax naa ko fi léegi ne bi mu ko jotee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ci boromam da koy jëfandikoo moom sëriñ bi digal itam képp ku aju ci moom góor ak jigéen mu di ko jëfandikoo giirub dundam te bañ koo sàggane mukk teg ci itam wax ci ay wax yu bari ci ay barab yu bu yu wuute cheikh Mouhamad Abdourahman Mouhamad Abdullah ibn Ubayd Rahman Alawi ci an nafahatul miskiya ma ngay wax ne bi leen ko sëriñ bi joxee ca gànnaar da caa teg ne leen xuduuhu bi quwwa maanaam jël leen ko te téye ko te fonk ko bu leen ko bu leen ci yox yoxe bu leen ci euh, deng-dengi wax itam faneen foo xam ne mi ngi ci majmaa bu mag bii dafa wax ne te loolo mooy ba mu koy doog a génn wax ne yéen mboolem taalibe yi day sunu borom jagleel na leen loo xam ne muy wërdu wii kudul yéen dana leen ko ñëwee kon nag na ngeen ko téye te sàmm ko te te farlu ci mm-hmm. te yaakaar naa loole mu wax képp ku yor werdu wi jële ko ci ndigal lu wér di ko jëfandikoo di sàmmante ak sart ya mm-hmm. xam nga ne gisal nga ca sa bopp ci diir bu gàtt loo xam ne wóor na la la mm-hmm. ngir nit gis ko ci leneen moom dana jafe dana yomb ci sa digg ak du yomb ci sa digg ak sa borom ak lum la yokkal yow ak lum la fanqal loo xam ne wóor na la ne yombutoon nga euh, lii mën a am euh, sëriñ bi itam wax ci ne képp ku koy jëfandikoo ak i sartam dana texe te du texe di ba faw àdduna ak alaaxira te itam ëllëg yomal xiyaam dana dugg àjjana te yàlla du ko xisaab du ko mbugal du ko teg benn jafe-jafe wala benn coona wax na itam képp ku ko jël te di ko jëfandikoo seytaane mu bon mii da koy daw du jaar fu mu jaar du ko jege ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen wax yu bare bari wax ci itam képp ko jël ak sartam di ko jëfandikoo saxoo ko mm-hmm. dana nekk dëgg dëgg jullit mu'min dana nekk dëgg dëgg muslim dana nekk dëgg dëgg muhsin mm-hmm. tey dana dugg àjjana te yàlla du ko mbugal dana ko nit ku sotti day doon ku sotti mm-hmm. koo xam ne nit jullit war a mel dañuy te loolu doy na sëkk rek charte yi ko sëriñ bi tegal ay charte la yoo xam ne maanaam da nga naan moom charte yi donc ku ci jaar ku ko yoroon di ko jëfandikoo <laughs> maanaam moom daanaka da nga naan baax nga bu noppi waaw maanaam loo seet doole da nga daal di baax ah, rawat na nak nga yor wird wi di ko jëfandikoo boole ko pas-pas bi nga ko war hmm. ndax dafa am jeexit jeexit ji nak li ma doon wax rek fan yi manam am na ci lol luñ mëna misal way amna do mëna doo xam wax hmm. parce que amna na doo mom luñu yegg la manam nit ke koy dund xam ko hmm. waye sukar bu tege Abdou Khadir ma ak yow ñun mas nañ mos nañ da koy gis rek manam mënuñ ko expliquer li sukar di rek neex na do nga mëna wax <laughs> waye bu na ñew lu muy saf dañ ko neex na bu nee lu muy saf bu ñu ko suukar li ñu wax wax ji amul njëriñ ndax <laughs> moom loolu mun tax mu xam dara kon faaw li bu ñu ko bëggee mu xam li xew mooy dañ koy teg ci loxo mu teg ci làmmiñam rek mos liñ mos xam liñ xam lu mu dal euh, lu ko gën a gaaw ci raxas diggante nit ki ak boroomam ak raxas ko ci bari ci ay jikko yu ñaaw ak yu bon ak i bànneex ak i topp bakkan ak euh, defal ko fatxu digg ma boromam ci diggante yu gaaw loolu moom jàpp naa ne lu ni mel amut ci kaw suuf fii ñu toll nii. Hmm. ndax nag werdu yi dafa am sanat bu gàtt te sanat nit yàlla wax nañ ko ba tey seen téere yi. càllale sanat bi mooy càllale gi. Hmm. chaîne bi càllale googu lay jokkale si digganteeg sëriñ bi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Hmm. lu mu gën a gàtt madadu werdu bi muy courant bi doole ji. jeexit ji mbóot mi day gën a gaaw day gën a fort. te fii ñu koy waxee moom. ci li ma xam xuma ben wérd ben tariqa bo xamne amna sanad bu gatte ni bi ko yoonu murid amee wérd ma ko xuma ko mom fenn ndax ni ma koy waxe bu la neexee yow mi may setan man nga legi sa digg ak rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ñet ni do nga fi dox te lolu ci kaw suuf ku ko am lu jafé la boo dem ci seigne muntaha me hafizahullahu raa mu jox la sa digg rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ñet ni te fi dox sa digg ak seigne tuba ñaar ni te fi dox seigne muntaha mo fi dox سيدي بشيرو شاول الخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لو يمه يمه لا سلام سلام سلام حديث دا نيو واخ حديث صح غيسنا سند سلام دا عبد الله نينكو فانكي وون غيسنا كوكي دوما تيول كومي تي محدثوني بام تولي سكرات صح بوكوكي نيو ديكو لاج لو غن بوغل غن بوغ تي ادنا لام كو واخ سند علي مو دا مو دان وارال توكي متي ياك بري بري تي ندان دافا بري دار وور لوكو لوي مانا وود اولو سند رك مكو مكو تاجو كون لو ام دوله لا لو ام jeexit la lu wér la hmm. loo xam ne moom nag li may wax toujours ñu bari nag seytaane dana gàllankoor seeni xel ñu nekk fanaan sart yi daa jafeek hmm. sart yi dara lu ci jafe amut lépp a simple lépp yomb hmm. lu ci doonoon lu jafe itam liñ ci wax lu doy sëkk la mooy booy doog tàmbali la nga ca man jël ko la nga mënoon nga ba ba keroog nga man ko def ko te loolu moom man dama ci wax sama expérience lu ma xam mooy ci lima xam ci lu wër dund ko gis ñu ko dund ñu bari ñu dul jeex hmm. do ko jël mukk yenn sart nga sàggane ko lu may ne da ngay gis ne sart def na moy ñëwal bopam dank dank ba xëy mat mat sëkk hmm. lool nak do lay wër ak barkeem moko mo mo tol nonu hmm. euh ñu bari itam di wax naan di ko ragal naan boko jëlé boko défé nangam man nga dof man nga def ni man nga def na loolu amu ci moom. xam seetaan loolu xam pexam do nga la. waye man musuma gis ku yar wër du maxuus jëlee ko na mu ko war a jëlee di ko jëfandikoo na mu ko war a jëfandikoo dolliwu ca dara wàññiwu ca dara am xelam lu tal ne virgule mujj mejj ci mosuma ko gis moom maanaam gën doon nit ngay gën a def waaye <laughs> moom lu ko sutub dërëm la kos insha allahu taala ah, njëriñ ñi daal bari na ah, ko njëriñ ñi moom hmm. mënees ko sa waxale hmm. moom réegi jéggi na dayo ah. moo tax hmm. na ko ñëpp farlu ci jëm koo jël suñ mun taxaa daaw rek ci ubbi teg masaal gi janaan ji dégg nañ soññee yim ci soññee te loola